nuyu nañ la sëñ bi. ah waaw maa ngi lay fay maa ngi lay fay. waaw ah, jàmm rek kay peex. sant yàlla sant yàlla bu baax. jàmm rek eh, gis nañ info yi. waaw bëggoon laa laaj eh, naka yaram bi. maa ngi sant yàlla bu baax. Mhm. bu baax a baax sant Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Abdou Khadir Mbacké. Mhm. jàmm rek. Mhm. est mën nañu revenir sur les faits naka la demee. ah naka ni mu demee moom dogalu yàlla yàlla mooy dogal. yàlla dogalam te am mënu ci dara yàllaay dogal yàlla dogal na mm-hmm. waaye yàlla mi dogal yàlla musal nanu mm-hmm. sant yàlla instant yi nii fan ngeen situé woo ñu ngi ñu ngi ñu ngi wër a soog yi mm, d'accord mais sant nañu bu baax a baax Ablaye Diouf Sarr président yebal na ko mi ngi fi noonu ñoo ngi jàmm mm-hmm. ñu sant yàlla jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf allo waaw jërëjëf waaw jërëjëf waaw